li gën fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek bataaxal bi nga xamante ne rek ex commissaire Cheikhna Keita daal dina koy jébbal CI ngir ñu jox ko nag juróom-ñaari charge yi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci biir réew mi nee na daal ña ngay sàkku rek ñu daal di def constat nag ci démission tacite bi nga xamante ne rek njiital réew mi nag mi ngi koy def ci vacance pouvoir bi nga xamante ne rek ci la nekk daadale ko nag ci limaanu jëwrit bu njëkk bi di Ousmane Sonko xam ne na état ci jëmmi boppam rek bu ñu gisee ni rek ma ngay doxalee mbir mu muy doxalee nag bu ñu muytuli rek dina am ay njeexital yoo xamante ne rek eh, kenn du ko mën a defar ndax nag baaxul benn yoon rek ci gouvernement bi nee na nag eh, bii moo nekk yoon bu njëkk rek ñu daal di gis nag ab premier ministre boo xamante ne rek eh, dafa daal di violer lépp loo xamante ne rek constitution la jëmale ko nag ci suñu loi réew bu Sénégal mi nga xamante ne rek jamono ji daal dinay am ay pouvoir yu bëri yoo xamante ne rek yu ci bëri dañoo gis ne rek dafa illégal mu nekk kat yu nga xamante ne rek daal dina koy yëkkati leneen li nga xamante ne daal koy xamle moo dina nag kii di président de la république mi nga xamante ne rek jamono ji lii di politique am nag daf ko jël rek def ko extérieur maanaam daal di dem ak ñëw ndax état ci jëmmi boppam rek doxewul noonu waaye nag bu fekkee ni rek ilimaanu jëwrin bu njëkk bi di Ousmane Sonko même bu fekkee ne sax moom moo nekk patron parti politique bi euh, li nga xamante ne rek jamono ji moom la ñu nekk nag di gis gis nañ ne daal bu ñu moytulee rek mën na tere foo rek du ñu neex ci mbir message yi ñu daal di def euh, seen constat ci anam bi nga xamante ne daal ñu ngi koy euh, doxalee ci langum euh, politique bi ginnaaw rek bu mu gisee ni rek suñu réew bi di Sénégal dafa daal di tënku rek ci ay constitution yoo xamante ne rek ci ay article yu dëgër la lu ci mel ni rek article 42 bu pencum Dakar nee na nag dem bi nga xamante ne daal kii di Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci nekk rek di yaataayu mba nag di génn di dem ci biir réew mi mun ko tuddee li nga xamante ne rek moom mooy vacance de pouvoir yëf yi nag na daal di dàkk di yi nga xamante ne rek eh, kii di Cheikhna Keita nekkoon ex commissaire moom moo daal di bind boobu lee bataaxal leen ko CI ak juróom-ñaari charge yi jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification yi ngir dara bañ leen raw.